les élections locales. La campagne électorale va démarrer après-demain. Quoi, c'est le vendredi à minuit. Donc le samedi, à partir de 0 heure, le vendredi, 0 heure 1 minute, démarre la campagne électorale. Notre parti, le Parti des travailleurs et du peuple, le PTP, qui n'a jamais été un parti yobalément. Et les gens doivent apprendre à connaître notre parti. Nous sommes allés seuls aux élections législatives de après avoir élu Macky Sall dans Beno Bokyaka, nous avons dit au président Macky Sall doo ñu may député ñoo ànd ak ak Moustapha Niass feu Ousmane Tanor Dieng feu Amath Dansokho professeur Ablaye Bathily professeur Momar Samb Landing Savané ak ñeneen ak ñeneen ñun kenn rek ñu génn wuti député bàyyi leen ñoom benn bokk yaakaar bi ñu bokk am benn député muy plus forest ñun nangu ko loolu nag nangu ko et ce plus forest là c'était très difficile très compliqué parce que Macky Sall venait d'être élu chef de l'État. de grâce. Nous avons osé aller seuls. Même le PS n'osait pas le faire, l'APR n'osait pas le faire, l'AFP n'osait pas le faire. Et nous étions tous ensemble, et le PIT et la LD. Le PTP est à l'excel. nous sommes allés au, local. J'étais candidat à la mairie de Kaolak. J'ai été battu. je répète derrière Mariama Sarr je dis ñett bu ngeen di war ay parti yóbbaale ma ko feneen waaye bu leen xool El Hadj dafa am fulla am pourquoi Pastef n'ose pas aller au local et aux qui viennent Pastef avait les prix forest et au local là Pastef n'aura pas n'a pas de candidat Dakar Esta vez soutenir par Village qu'on soit à Martini. Parce Pasteur n'a rien à Dakar. À Saint-Louis, Pasteur n'a rien. À Kaolak, qui connaît pasteur fier là-bas. À Nioro, Tamba, à Koda, à Matam, à Padjibilungom, qui est parti avec leur liste parce qu'ils personne. À Boy, leur liste, leur qui est où? Qui est où? Qui est où? Qui est où? Qui est où? Donc, ces coalitions-là de, de, Sonko, avec les Khalifa Salla, Bougargui est le seul à comprendre, est le seul à comprendre les magouilles de Sonko. Il a très tôt déjoué les manœuvres de Sonko, qui voulait utiliser les gens parce qu'il n'y avait pas de candidat. Même Papa Léna, qui roule pour Sonko, l'a dit, a dit, bah, il faut aller. Parce yo, amuloo ay identité remarquable à part yow kenn pour gagner fenn mu ne ma benn waaye Pastef bu mën gagner benn commune Sénégal xëy na yow kon ubbeekul xam ne ñoom Khalifa Sall am nañ ay maire déjà avant yow ay Maajo ay Bamba bi nga xam ne moom Cheikh ba léegi day jël dafay gagner ñoom ñaar ñëpp samay waay lañ mais ba jeexal la xam ngeen xam ngeen Cheikh ba midi yëpp moo ko moom léegi ndax mu nga taxaw fu nekk ci xale yi ci jigéen ñi ci koñ yi ma ànd ak moom gis la muy def xam ne Messi moo ñëw pour dugal bi kii moom jàmm la woote maa ñaan Bamba nag mu nangu jàmm ñu ànd ci jàmm ñu gañe ci jàmm mu abal Cheikh mu jël liggéey la Médina noonu aussi Diouf Sarr un cadre ki liggéey yéen xam ngeen Barthélémy Dias du mës a liggéey Sénégal wala bu nga xamalee fu mës a rek moom fu mës a wala moo ko rek chômeur yi la bokk de chômeur invétéré fu mu jàngee kenn xamu ko lan ingénieur la déedéet professeur la déedéet diplomate la déedéet bata juriste la déedéet papaam juriste la administrateur civil la cadre la Jean Paul Dias waaye doom cadre Barthélémy yow mun a yore mairie Dakar lu toll Dakar di jox am américain tamit Barth américain la xam ngeen ko yow France France dégage du ñu wax Amérique Amérique dégage yow bokk yow bokk kat kap kan sama gars yi ñooñu ñoo naa yow américain yow chômeur yow li di histoire yow ci jàmm dara yow saaga rek def yow duuri rek ngay def waaw dañoo bëgg am kilifa rek Dakar kilifa ko war a yor soit war fi ni kilifa la Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr kilifa la Mame Mbaye Niang kilifa la Pape Diop ñooy ñoo ñooy candidat Dakar waaye Barthélémy n'est pas candidat Bougane Gueye Dany kii di fële mais listam dañ koy déposé baaxul ah da doo ko jox Bamba Fall <laughs> ah daan ko déposé ko ba Bamba ko mu dee Bougane xam naa ne moom moom kuy ku jëppi Bamba Fall moom doo ko ci jiitu Bamba ni man xooluma woon li ñu ma jox damaa dem ndeke manqué na ay tur waaye bu manqué ay tur kay la liste est irrecevable li ma ciy neex <laughs> mais Bougane la de ndeke Bougane xam na ni Barth du gagné Mermoz xam Barth xalu du gagné mairie Dakar na Diouf Sarr lay boo tax mu dem Mermoz aussi nekk fa candidat alors que mënoon na yem Dakar rek moo tax waa Pastef li ñoom duñ ko woteel Mermoz comme duñu woteel candidat Madiop Grand Yoff Boubacar Camara lañu woteel jéngu ñoom tasaaroo nañu yàgg léegi Bougane bi muus nekkee Bougane dem na Mermoz déposé candidature pour mairie Mermoz kenn xamu ko temps la génn boobu moom jaar na yoon Bougane xëy na du gañe dara waaye waaye man xam naa ne dana duma Barthélémy Dias ndax yëpp benn mooy gañe Dakar yëpp tout la ñu rafle benn bokk yaakaar waaye ma ne kuy dóore ma ne kuy saaga xale yu saaga nan muy dóore karabaas rek làmbali rek làmbali fas fas da ci duma duma waat dóor dóoraat alors ce qu'il faut retenir au niveau de Mermoz Barthes n'a jamais gagné Mermoz vous ne le savez pas lors des dernières élections, des dernières élections locales, tellement parti était impopulaire, Khalifa Sall l'a placé à la sixième place. C'est soit Martini qui était tête de liste à Mermoz pour Khalifa Sall, au ah, Dakar. Barthes était maire sortant de à on n'a pas osé le placer en tête de la liste. C'est un échec. Un maire comme Maria Massar Akawra, on l'a dégagé pour je crois, son ex-époux. C'est un échec. Barthes a été dégagé. qui étaient en train mais de le maltraiter pendant ces tournées-là, ces visites. dans le quartier de Sacré-Cœur. Les gens n'aiment pas Barthélémy Diaz là-bas. Ils disent qu'il est arrogant, qu'il est trop suffisant, il est trop jeune, il n'est pas mûr, il ne peut pas être leur mère. Et ils ont élu Soham Mais après, Khalifa a demandé à Soham de laisser Barth diriger la mairie de Mermoz. Donc c'est Soham qui a de liste majoritaire. Si on n'avait pas si on avait modifié le code avant ces élections-là, en 2014, c'est soit Mardini qui aurait été maire de Mermoz et non Barthélemy. Barthélemy, c'est l'appareil, il fait semblant, curieux, <laughs> de l'activisme débordant, sans, sans rendement aucun. Trop de bruit, ce sont les tonneaux vides qui de bruit. Soit Mardini, par exemple, Diouf Sarr, Personne ne les entend. Ceux qui travaillent, comme Macky Sall, on ne les entend pas. Mais ceux qui sont des. Comment on les appelle Les animaux là, les perroquets. Les perroquets de la politique, comme Sonko, Barthélemy et autres, on les reconnaît. Les Sénégalais veulent des gens responsables. Khalifa Il est ça, il était sage. Il était mûr. Et il a été élu. Bart est agité. Il est arrogant. Il est suffisant. Alors, comment peut-on élire un jeune comme ça pour diriger une ville comme Dakar, la capitale du Sénégal, qui doit discuter avec le chef de l'État, qui doit aller à l'aéroport pour accueillir des autres accueillir des chefs d'État avec le président de la République. Pour cela, il faut être civilisé. gentleman. Il faut être raffiné et non violent, arrogant, virulent dans les propos. Non, Dakar votera Diouf Sarr, Benno Bokk pour qu'il y ait synergie des forces entre l'État et la commune, qu'il y ait une grande complicité pour le développement de Dakar, cette belle ville de l'Afrique occidentale. Alors, appel, je termine par là, je, solennel à la classe politique pour que règne la paix la paix, la paix pendant ces élections locales.